Merci beaucoup, Monsieur le Président des 165 députés de l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, maa ngi honorable député représentant organe de presse et public bi monsieur le premier ministre je veux remercier le président de la République mi permettre 15e région mu permettre sénégalais diaspora ñu mën am 15 députés mën a ñëw taxaw fii wax jërëjëf monsieur le président monsieur le président da nga am gouvernement de combat nga am ay ministres yu jeunes am ay ministres yu compétents moo tax ku fi jaar ak sa budget rek voté nañ ko faram fàcce nañ ko ba sénégalais yi nga xamantene nopi garmi lañ am ñepp xam nañ li xew kon ñom ñu ngi leen di féliciter bu baax nga am budget social ñepp gis nañ li nga def di wàññi dund bi di wàññi location bi kon monsieur le ministre premier ministre jërëjëf président de la gis nañu yoon wi dañu naan yoon kenn di ko lekk ah yoon dañ koy lekk ndax yoon mooy développement boo amul yoon doo am développement tey jii ñun ñu dëkk Tamba dañuy ndekkee dakaar dem añe Tamba mu ñu neexee ñu ñëw reer si waat Tamba Dakar kon loolu dara la tey jii boo jógee tak Tamba tey tey tali bi ba nañ ko ba Kidira Kidira mooy frontière entre le Mali mu jóge fa def ilaa Touba ñuy wax mu def ilaa Tiwaawoon ñuy xaar nag ilaa Mbàkke Kulibanta ñuy wax loolu mu ubbi Mbuur Fatick Kaolack mu war ko bëmax nag ba Tambacounda kon loolu yaakaar naa ne développement la monsieur le ministre fii TER bi ñëpp xam nañ ne fonctionnaire yëpp léegi dañuy ñëw ci gaar bi gaar seen oto dugg ci TER bi dem liggéey fay 1500 rek delluwaat en moins de 30 minutes ñu egg fi ñu war a egg BRT bi oto point yi di fël kon monsieur le ministre premier yaakaar naa ne loolu président bu ci liggéey liggéey bu rafet ñuy wax loolu mu jàll ba Kédougou dem defar yoonu Kédougou Salémata nga xam ne da doon def 6 heures de temps pour egg tey une heure de doo ko def nga mën a foofu loolu defe naa liggéey bu président mën a def ñu ñëw ci hôpitaux mu defar bu Touba defar bu Kaffrine defar Sédhiou defar Kédougou ñuy xaar nag hôpital niveau 3 bu Tambacounda te ku la jox ndékki jox la añ bu la diggee reer xamal ne dina ko def kon ñu ngi xaar loolu ci président de la République ñu dem mu dem ci université yi ñaata université la fi def fi mu toll nii bër le premier décembre bi rek la ñu inauguré bu jàpp ñaar mu promettre nag université Sénégal oriental te xam naa ne dina ko def kon monsieur le premier ministre jërëjëf président de la République wu ñu ci loolu monsieur le premier ministre boo demee Tamba tey ci banaana rëy président de la daf si def 3 milliards 500 millions ñuy recruter ay xale. li leen desee rek mooy ay piste yoo xamante ne dinañ mën a dugg ci ci gox goxaat yi pour que xale yi gën a mën a liggéey tey jii plus de 700 xale ñu ngi fay liggéey te bu ñu defaree piste bi dinañ am plus de 1000 xale yoo xam ne ñu ngi fay liggéey jërëjëf président de la république.